use seen boppa nga gis citizen yi ñoo xam exactly ah, ñan ñoo nekk di ñan ñoo nekk si studio bi and ah, ah, ñoo nekk di wax on behalf of team Dance Gambia Championship not so waaw acca ñu dem ak yow first yeah maa ngi tudd Abdou Hadj Dramé that's my real name mm-hmm. but gars ma woo Bandmaster Ban Master Ban Master moo famous mm-hmm. mooy sama artist name bi ana ah, Ban nga amee eh? <laughs> full group la amee Ban bro <laughs> waaw waaye <laughs> so ban Ban la so Dunia Ballet cultural dance group oh, oh Master uh-huh. dégg ngeen you know Ban Master is here and uh, from right there man suma tur maa ngi tudd Khan Mohamed Khan manager sunu cultural dance group so we are behalf on the Dance Gambia Association okay okay nice moom moom you know uh, face bi xal naa familia you know bu mu waxee ne ñu jékki rek am na straight you know everybody in the industry your face must uh, look alike man um, first of all bandmaster man noonu la la waxee you waaw <laughs> uh, ñu yeetal ñit yi Dance Gambia Association bi si lan la di yëngu lan mooy seen taxawaay nga gis ñuy déglu tamit you know foog naa every year gars yi day ñëw fii waxtaanee lu gars yi day lu gars yi day def but um, you know uh, maybe ñu déglu woon last year nekk ñu déglu waat so pour gars yi mun a xam dance Gambia association bi si lan la taxaw lan la day def you know nga wax gars yi nga gis uh, ñu ñëw déglu tamit ñu mun a xam lan lañ nekk di wax dëgg la Master maa ziar di la nuyoo bu baax a baax a baax ak mm-hmm. dadal bi tey mm-hmm. di nuyu sama partenaire bi Mouhamed mm-hmm. nekk nit ku baax nit ku am respect tey nekk so dans euh, dans dans association bi lu mu jóg mooy maanaam pour dundal suñu culture bi suñu cosaan bi suñu musique bi ndax da ngay gis ni industrie bi fu mu toll nii mu ngi dee mhm. laa la mën a wax parce que doole bi demoon te industrie bi mënul dem mhm. without culture mhm. ndax dëkk bu nekk am nga sa cosaan dëgg la den kon ñun suñu cosaan war nañ ko mun a dundal ba suñu doom yi suñu sët bu ñu ñëwee ñu fekk ko fi waaw loolu moo tax danse association bi mu jóg. Mm-hmm. loolu la jóg pour di dimbale artistes yi. mun na leen dooleel. soo xol yi nekk benn doole bi xam-xam bi yëpp ñu indi ko boole ko. den mën a pousse suñu dëkk bi Gambia further. ok dafa mel ni euh, main objectif bi yëpp pour euh, dooleel culture bi la. waaw you know anything that has to do with the culture. sure ok nice Mohamed man laajte la euh, Dance Gambia Association bi mostly every year gars yi dañ dee ñëw fii nii. seen ñëw bi nii lan moo ko waral. waaw. Euh, ñëw bi nii lu ko waral lu la woon la rek dafa nekk problème bi nga xam ne mu nekk artistes yi comme traditional artistes yi local artistes yi mm-hmm. ñu nekk si wàllum drumming bi ak dancing bi problème ñu nekk di fees si biir dëkk bi mm-hmm. so dance association bi loolu la ñëw pour xeetali gaay génne gaay si problème yooyu noonu so da ngaa gis ne euh, arts bi dafa over important si suñu wàllum industrie bi mm-hmm. te ñu bëri dem fa dee job dem si réception yi hôtel manager yeneen service yi ba include si culture group bi si season bi tourism sector bi so léegi ñun suñ tànka moo nekk fii pour ñëw tey ñu wax artistes yi seen wargaay comme dooleel gaay ak seen doole fan la nekk si biir réew bi fi nga xam ne foofu leen mun a taxawee comme da gam music union bi nu mu taxawalee woykat nga am gam movie union théâtre bi nu mu taxawalee yi so dance association bi tam moom tam noonu la ñëwee pour dooleel muy drama si ak tegakat yi si biir dëkk bi ok moo waral waxtaan bi tey you know pour ak euh, ñu de mostly su ma bëggee laaj euh, yan façon problème la gars yi dee jànkuwanteel euh, dromas yi dansas you know when it comes to you know their craft waaw problème yi daal bëri na daal moo tax sax ñu waral too bi ni si radio bi bu nga def lu bëri mm-hmm. comme si lu ko dooree benn si commencé educate society bi about this cultural aspect comme cultural bi culture nekkul lu deel biir Gambia mm-hmm. cause ñu bëri den dee over gom comme culture Gambia sax amun culture most of the time loolu leen ñu dee bëgg a présenté comme different cultural mm-hmm. diversity yu nekk si biir dëkk bi waaye di main issue moo nekk ñi nga am nga xam ne beneen la ah, foog naa wóol yëpp advance nañ si benn des Gambia muy dancing and na bi di nga fekk ne it's a professional job well paid ay nit yaa ngi koo def respect li mm-hmm. waaye soo ñëwee biir Gambia is otherwise mm-hmm. because you hardly recognize comme artist yu nekk di eh, yëngu si side boobu noonu mm-hmm. da gis ne which play very important role bi society bi because dëkk bi duñ mun la dem without suñu aada ak cosaan so léegi eh, doole eh, association bi moom loolu la ñëw pour dooleel body bi because association bi nekkul lu ees fi yaaga na fi mm-hmm. waaye comme groupes yu bëri xamutoon association bi mu ngi si dëkk bi mm-hmm. so léegi comme association bi da nga ko bëgg a use into it full bi groupes yi ñu nekk di liggéey ñoom tam ñoo xam fu fii seen doole yu eh, gàllankoor yu ndee tasee si season bi industrie bi mm-hmm. ak yeneen place yi nga xam ne time bi war nañoo weesu foofu noonu sa association bi la ñëwee waaw ñu ngi gis ay cultural group yu bëri da nga dee gis cultural group yoo xamante ne ay mag ay mag rek ñoo fa nekk yi naw nii ndax ah, ah, yaatal na yoon pour you know groupe yi nii ñëw bokk da nga dee gis ay maire yoo xamante ne you ay maire kese la you know ñu ngi amee seen band ñu ngi amee seen wala seen cultural group boo xamante ne dañ dee dem ab ay place di fa perform ak yooyu noonu ndax Dance Gambia Association noonu yaatal na wala ubbil na yoon ñi pour gars yi ñëw join you uh, xamal leen seen right ne you war ngeen na am lii war ngeen a am lii you know and so on da Dance Gambia Association yaatal na yoon bi pour ñooñu. waaw yeah Dance Association bi dafa loolu moo tax ñu créer ko. Mm-hmm. dafa yaatal du like uh, ñëpp nekkul di demee ci benn côté rek. Mm-hmm. maanaam mooy kumba am ndey kumba amul ndey. Mm-hmm. dafa nekk fii pour ñëpp am ndey. waaw. ñëpp la ñu woote. Mm-hmm. muy yow boroom tama bi. Mm-hmm. borom bongomaan bi. Mm-hmm. maire yu ngay wax noonu. Kora Playa. Balafon ya bàyyi ñu kenn. te bi nga bu ñu nee culture. Mhm. dañu nit pour tra ñëpp ñu fi nekk. ñëpp ñoo boole yëpp ñëw ñu boole mhm. liggéey. waa léegi ma jox la benn exemple. bàyyi ma dog la fa rek. Euh, baat Bad Master <laughs> jégal maa ngi jégalu ah. maa ngi jégalu ñu dem <laughs> commencé tuuti ñu ñëwaat ah ñu dugal koppar si néeg bi ah <laughs> waaw nañ dem commencé ñu ñëwaat. ngeen ñëw xol yi daal di gis na wàcca. Yes, yes, welcome back. Welcome back from that short, short, short, short commercial break right there. Uh, just remind you, listening to the 360 show that comes away every Tuesday from the hour uh, of 7 to 9 p.m. Of course, we have the Dance Gambia Association team, of course, uh, uh, which are in the studio to talk about, you know, um, uh, the Dance Gambia Association, you know, uh, some of the things that they can do and what they are doing. Uh, to make sure the rights, of course, rights of uh, uh, dancers, drummers, you know, are being recognized or, you know, some of the opportunities or rights they need to know being part of, you know, an association. We have the team here, we have bandmaster, and of course, Mohammed right here. Balaa commencé duñu doon dog, you know, dama la doon laaj cultural groups yi, maire yi, you know, ak, you know, mag yi ñoo xamante ne, you know, they are in this uh, sector and they're doing their thing because normally soo waxee Dance Gambia Association well soo ko waxee maire dafa fa ne ah ok lii association ay xale la you xale yi ñoo fi <laughs> nekk ay you uh, uh, dafa mel ni gars yi dañ bëgg a indi seen moroomi xale yi rek ñëw mm. you def ay bagage or you know something like that but enlighten ñu koo xamante ne mag la mu ngi mu ngi si mu si art bi mu si culture bi mu ngi si dance bi you su ñëwee si dance Gambia association bi su joinee ak su joinee naka la moo joinee tamit su joinee tamit you know what are some of the benefits lu moo am you know uh, si si si si groupe bi ok mooy euh, lu ma la waxoon fii léegi mooy euh, danse bi association bi. Mhm. jógut pour kii pour mu yem comme du yëfu xale rek. Mhm. dañu jóg pour dëkk bi moo ko moom. Mhm. pour Gambien yëpp la. du gan bi du Sidi Sine bi. du kenn képp koo xam ne yow artiste nga. soo am nga raay pour nga ñëw bokka te ci maire yooyu noonu. yaakaar naa am na solo trop. pour maire yooyu ñu ñëw bokka ndax boo xoolee tey si suñu mag yi suñu paa yi fi nekkoon. te boo demee nga xool mm-hmm. kenn du la mën a taxaw fii pour mu wax la seen seen stri seen story mm-hmm. ndax ñu bari xamuñu tey suñu mag yi fi nekkoon mm-hmm. daanaka da ngay gis paa bu fi nekk mu nekk di best drama wala mu nekk best dancer wala mu nekk ci leneen ci wàllu kooraa la ak leneen ak leneen balafon ak balafon tey ñun fii da ngay dem boo bëkkante ak moom felante si yoon bi sax doo xam kii mooy kan léegi boo demee suñu par exemple suñu neighbor country yi di adduna bi yëpp dinañ xam ne diw mooy diw waaye boo ñëwee tey si ñun Gambia fii mm-hmm. dafa mel ni loolu maanaam dafa dee nekku fa mm-hmm. ñu bari def nañu fii tey ba ñu uyu seen borom mm-hmm. te kenn xamuleen te kenn xamuleen te loolu dafa daw yaram trop ah, soo gune war nañu mën a xam lan la ñu moom ak la ñu moomut te boo ñëwee si dëkk bi fii dañ bu ñu la nee diine dinañ la ne aada ak ak cosaan den kon am na luñ lu ñu moom ndax yaakaar naa ñun africain bi loolu la ñuy bakkoo suñu cosaan waaye léegi bu demee ba loolu mu war a dee soo kon loolu dimbalewuñu suñu xale yi war nañ mën a xam loolu te boo paree nga gis ni culture bi benn côté rek la ko nit yi féetalee foofu lañ ko xamee mhm. te léegi bëgg nañ ko génnee foofu noonu mhm. indi ko ci biir société bi mhm. ñu dund ko ñu xam ko maanaam du yem ci hôtel yi. Mhm. ak yooyu noonu waaye war na mën a dund. suñu biir dëkka suñu biir suñu on nit suñuy biir. nekkul nekkul touristes a xam. suñu culture and so on you know. te ñooñu noonu dañuy ñëw ñu njëriñoo ko fi yóbbu ko seen dëkka boo leen fa fekkee ñu def fa lu garaaw lu fa dara jarut. Mhm. te boo ñëwee mu daj. doo gis benn sometimes nga ne doo mën a understand sax. waaw naka la laaj ko story mun na la wax loo xam ne nii. Mhm. street drum boobu noonu sabar boobu muy tëgg noonu yow mi juddoo fii màggee fi loo xam ne yow sax xamuloo ko te nga xam ne loolu kon mhm. réer la mhm. maanaam bo sa ànd ànd boo sa ànd boo ko tojee ànd boo dem fekk fa borom ne faa mhm. den doomu adama bu ne war nga mun a fonk sa bopp just believe in yourself is everything you don't believe yourself others cannot believe you so lii moo tax danse bi jóg danse association bi jóg waaw dinaa dinaa dellu baan master dinaa dellu si yow waat dinaa ñëwaat uh, laaj la you know uh, uh, loolu naka la de nekkee you know um, because gisoon tëgg nañ ba tëgg nañ ba dee comme na ko waxee. dëgg fii ca ba dee kenn kenn xamut leen. you know uh, Dance Gambia naka la mu ne form association and help these people uh, archive them uh, in somewhere loolu naka la naka la mu ko defee ba daa bàyyi ma demangum si Mohamed laaj ko yaa ngi waxoon. Um, hmm. different cultures because xam ne ne Gambia dafa am different different kind of cultures and sometimes nga ne soo génne gars yi wax ne Gambia amul culture sax. Yeah. But uh, do you think Gambia can have one unified? Uh, I'm just asking one hmm. unified culture boo xamante ne ok uh, su su tëgee wala su su lifinee rek da ngaa wax ne ok lii Gambia la jógee la dance Gambia association mun naa def lu noonu am benn even nekkul unified sax but uh, like a symbol or a name tag boo xamante ne you know soo ko gisee da nga xam ne ok this is from the Gambia. waaw si loolu noonu moom kay loolu moom am nañ ko bu yàgg sax because comme. Ah, comme cultural li fin bu fi nekk cultural diversity bu fi nekk dafa xala yaatu although sax boo bokk nañ suñu gën a tuuti biir Africa ah, in term of different tribes yu reside biir Gambia mm-hmm. waaye da xool ne loolu moo nekk di uniqueness about the cultures mm-hmm. nga yes culture bu nekk da nga am sa own traditional nga am sa own culture ñoo ko demale mm-hmm. so yëpp den am different diversity so da ngaa gis ne culture group yi foofu leen interesting ne because da ngaa gis culture group si yëpp yu bëri yu nekk di operate waaye yeneen yu si bëri comme soo ñëwee si industrie bi mhm. yooyu tribes yu nekk si biir dëkk bi yëpp la ñoo represent mhm. because suñ performance yi suñ ko yóbboo si hôtel bi duñ mu la ñëw present comme Joola eh, traditional for the whole hour wala ñu ñëw present all of traditional for the whole day mhm. so dañ dee def into different cultural dancing ballet yi nga xam ne suñ demee si season bi yooyu leen dee present ñoom tourist pour ñu mun a gis different cultural diversity bi si dëkk bi comme tradition bu nekk nu mu amee dansaam nu mu amee maxam bi ak nu mu amee music am so da ngaa gis ne comme musical pattern booy wax boobu exist na fi already mhm. because da gis ah, moom dafa unique noonu la mel in mhm. general mhm. gis ne right now exemple soo demee Africa West Africa bi dëkk bu nekk da nga am sa own instrumental yi nga xam ne yooyu nga gën a favorite comme exemple soo ne kora bi everybody gaa recommended ñu si kora soo waxee kora rek wi Gambia wi claim ne comme fii la jóge so yeneen drums yi tam ñu fa tamit soo xoolee si seen traditional even though tribes da ngaa gis ne tribes yooyu noonu yëpp ku nekk sa biir nation da fa dee amaat different culture des na si side bi nga nekkee mm-hmm. comme right now example soos eh, mandinka bu residing Gambia mm-hmm. the way they play their music might be different from the one residing in Mali or elsewhere so da gis ne pattern difference bi mu ngi fa waa si traditional mm-hmm. problème bi nga boobu foog naa si musique bi rek la nekka waaw te soo gisee loolu mu waral loolu si mu trend bi leen dee jël ak li nga xam ne is then ñu def si suñu own style ak skill which is another art tamit mm-hmm. because music sax noonu nga dee développé mm-hmm. waaye lu si bëri comme du dee nekka li nga xam ne we build from the ground comme representing all the cultures right now waaye am na ñu ko nekka di def léegi mm-hmm. because soo bàyyi xel léegi da gis music yu bëri biir Gambia booy ñu ngey def trap manding ñu ngey mix ak yeneen fusion yi yaa nga gis afro bi ñu bëri ñu ngi see wooy uh, manding bi so mi ngey nekka beneen fusion so comme cultural bi mi ngey ñëwaale si beneen side waaye ndanka ndanka rek Yeah. Wow, nice. Very interesting, you know, definitely. <laughs> <laughs> that was very thoughtful, you know. Um, sure. yeah. Yes, Bandmaster Manu at you. Um, And um, talking about um, archiving all these things, first of all, uh, Kubuga join. Kubuga join Dance Group, Dance Gambia Association. Be. Mm-hmm. Uh, naka ngay joinee ak lan a criteria si la mooy some of the uh, standards yoo xamante ne a person or a group war na ko pour nga mën a join association bi. waaw association bi moom boo ñëwee moom. Mhm. dañu lay wax euh, depuis soo am na su rusa régulation yu fa nekk. Mhm. loo xam ne loolu lañ lay brief. Mhm. léegi boo ñëwee mu am nombres yoo xam ne nii. yooyu balaa ñuy jógee fii dinañ joxe nomba yooyu mm-hmm. nga ñëw nga mit ñooñu mm-hmm. ñooñu dinañ la daarek fan nga war a dem ak lan nga war a def waaye a bokk mm-hmm. so da ci dance yi boobu noonu dañ la def constitution groupe bi dinañ la jox yeneen ak yeneen yu fa nekk den from the den nga am artist card bi boo xam ni boobu moom boo ko wanee mooy sa identité dan mhm. lii mooy sa carte artiste te boobu tam boo ñëwee bu nekkee benn nit la mhm. loolu dafa différent ak koo xam ne ni moom benn benn nit kese la moo ñëw pour defar bu nekkee yow kennal yow sa bopp yow kese loolu is five hundred dalasi la waaye bu nekkee da nga am groupe mm. dafa am benn discount bu fa nekk parce que léeg-léeg nga gis groupe boo xam ne dafay am ay twenty something people kooku ñooñu noonu boo leen bëggee gis ak mm-hmm. mm-hmm. a charge ñooñu ku nekk euh, five hundred dollars mm-hmm. moo tax ñu mu am discount waaw dafa dépend ci number of those people yow yow li nga am from twelve people si kaw waaw loolu la fa demee ok das euh, su fekkee group la da ngaa fay thousand five. su fekkee ne solo la da ngaa ñëw fay euh, euh, five hundred dollars. five hundred dollars loolu mooy sa artist card. ok léegi nag dafa des yow naka ngay ñëwee pour maanaam registration bi. ok waaw moo tax yooyu boo fa demee ñooñu loolu lañ lay waxal naka ngay registré ak naka ngay demee. waaye bu nekkee da nga bëgg a artist card loolu moom loolu nga war a fay. ok ok léegi soo for exemple registré naa ba pare. Mm-hmm. am naa carte bi ak naa am naa everything léegi léegi man as as as as as di you know the artist you know lay njëriñoo si groupe bi. lu ngay njëriñoo si groupe bi <laughs> maanaam. maybe dama dama nekk di laaj maybe. am na ku kuy déglu sa artiste you know uh, ok wa dina wax si xelam bi ne su ma fayee xaalis bi nii léegi ñii groupe bi lan la maa njëriñ non groupe bi lu mu lay njëriñ waaw maanaam dina la taxawul pour guide la mm-hmm. ak pour dooleel la mm-hmm. maanaam won la lan mooy lii maanaam nit yi fonk la mm-hmm. te jox la sa doole maanaam sa cër ok sa right waaw sa right nga xam sa right ndax amoon na yu affaire yi am na yu jotoon passé fii maanaam covid 19 bi bu mu passé fii am na ñoo xam ne ñëpp jot ñëpp artistes yi nekkoon may bi ñëpp jotuñu waaye am na côté boo xam ne ni ñeneen jot nañu tuuti nampal bu ñu leen joxoon waaye boo ñëwee ci danse groupe bi ñun artistes yi so I don't think maybe man man aw ma maybe Mohamed. non boobu moom kay because amoon na. so so yéen yéen yéen moom. <laughs> koo xamante ne bokk na si dance Gambia group bi rek. waaw yéen uh, you obviously yéen am ngeen si Covid. comic fonts yi. non ñun amul loolu am la nekk di explain ah, na comme ñun artist local artist yi nobody got the privilege to receive si fonts yi so da ngaa gis ne Dance Gambia bi in the importance yi <laughs> moo nekk mhm. if you are registered eh, members ko because ah, lifin bi nekko registration bi lu ees comme ñoo ko fi def mhm. because as a culture group am na registration yu bëri yoo doon def si dëkk bi mhm. comme ne da nga dee dem as a culture pour nga register as a group pour sa carte bi dem KMC register pour tax bi as a business so da ngaa gis ne culture group si dañ doon register loolu but the end of the day suñ soxlee gars yi dundee ñoo comme am eh, taxawaay si gars yi mhm. comme exemple léegi groupe si nga xam ne ni ngay dem liggéey si hôtel si industrie bi mhm. so da ngaa gis ne full culture group for example mi ngay yóbbu ay 20 members yi nga xam ne ay elders leen mhm. different age family background ñi ngay dem perform si hôtel yi ñu ngi leen di exploit comme nga imagine full culture group hôtel bi mu ngi koo fay 1500 about si <laughs> eh, wala members of group gars ñu war a consolidation yeah, so group bi so, uh, depuis bu nga ko dooree bu nga ko formé last previous two years si mm-hmm. si lii leen gën a nekk di xeex sax pour mm-hmm. artistes yi seen wàllum fee bi ñu commencé di feegaay li nga xam ne dafa am njëriñ mm-hmm. bu ko defee nga xam ne job bi dafa amul a am respect tamit because soo xoolee tamit comme ne luñ su dee aan moo ndaw ndaw bi nga xam ne ba kenn du dee si dee comme amal du ko dee job fayda daal mm-hmm. comme da ngaa gis ne right now everybody is proud to do any other job si biir bi koo laajte sa job daf dee proud soof mm-hmm. waaye mun naa laa soo ñëwee si set bi nii by force di nga fekkee gaa am leneen lu nga ko si booleel mm-hmm. because moom kenn du dee mun la dem recommendé la fen it's not recommended as a professional waaye it's not supposed to be waru tamit noonu because soo génnee Gambia rek rek exemple suñu neighbor country bi suñu demee dinañ fa fekk ay xam ne they are well respected in the society ñu di employ di leen di leen pay respect uh, respectfully ba nga xam ne gars yi ñi ngay mën dunda ak seen bi nga xam ne moom la gars yi gëm. Mm-hmm. yow yaa ngi gis ay feccakat bi mm-hmm. nga ki nga xam ne mbég na ko si danse bi wala tëggakat. <laughs> so this is the problem so association bi fii la ñëwee nag lii mooy doole because doole bi nekkul pour ñëw à ah, registration no groupe bi rek la. di gis loolu fii nii. waaw mm-hmm. ah, loolu depuis Chok. waaye fu mu doon registré. mooy ancien culture waaye da gis body boobu noonu lu fa nekka moo bëri tamit mm-hmm. waaw nekkut ñun rek la fa nekka although main priority bi pour culture bi leen wax waaw waaye da gis ne soo fa demee da fekka yeneen art eh, specials yi nga xam ne mm-hmm. waaw it's different from the culture waaw mm-hmm. maybe ah, musician yi ñi ngee jëfalante gars si another way but we don't know it so da ngaa ñu si wàllum cultural dañ dee mën a am comme problème yooyu si biir season bi mm-hmm. dem hôtel bi dañuy fay lu ndaw ñu négocier price bi ba sonna du nangoo increase suñ price bi mm-hmm. at the end of the day contrat yi du nga ko dee fula anytime mun mm-hmm. nañoo ah, naka la tudda terminate sa contract because it's a cultural thing ay Gambian ñoo fa nekk so xam nga léeg-léeg jaay advantage yu bëri sax mm-hmm. dem na sax ba si danse ay jigéen yi sax gis naa jigéen fii bu jigéen nu nga ko dee ñaaka respecté si dëkk bi mm-hmm. soo nekkee jigéen rek mm-hmm. dandeyaa comme dara nekku sa boppam yow amuloo aim amuloo idée soo nekkee fii moom ñu def la ko ku amut fay ah so lii mooy problème bi because gars ñi ngay gis tamit gars ñu five years ten years mm-hmm. mu lu see dawal bicycle sa bu correct so xam waaw loolu dafa over ñaaw sax mm-hmm. so lii leen nekk di fight because den xam ne eh, culture bi moom mm-hmm. la dooreel eh, cosaan bi si biir dëkk bi waaw ah, culture bi mooy every entertainment si bi so lu nekk si biir dëkk bi rek pour ñu dooreel ko mu dem si kanam foog culture bi mu taxaw eh, foog nit yi ñoo xam lii lu mu represent ak ku nekk xam nga lan nga am tam because amul lu ndaw tamit soo xoolee art bi rëy na yaatu na biir Africa worldwide comme ni sa boppa exemple yoo joxe tubaab yi ñu ngi tega jëmbe te yaa ngi gis tout ça ordre traditionnel ñu ngi si biir dëkk bi tey soo demee Europe gaa yi exploit neen almost all African tradition tey suñ duggee bi Europe dañoo fekk jëmbe yu play professionnel tubaab yu play professionnel jëmbe daan African seen boppa sax ñi nga xam ne seen old mm-hmm. ñu ngi taxawee si maa bi mm-hmm. eh, mm-hmm. am ay rich cultural background ñi nga xam ne still now fii rek la am yu si jot a cross border sax si lu bëri dañu si dee dominate ngi am trap yi ñu max bi ñi ngi am saamaayo bi every year da nga am huge amount of tourists yu bëri yi nga xam ne kumpo rek moo leen dee indi pour gis suñu dëkk bi so loolu is way of marketing yaa ngi am ñeneen ni dee ñëw lii leen dee request den bëgg a gis kankurang bi den bëgg a gis max bi different traditional so yooyu noonu yëpp entertainment moom mi ngi dem si beneen side right now mu ngaa tasee sa benn Gambien nga koo laajte tradition laajte ko culture about maxam yi nga xam ne moo nekk si tradition sax du la ko soo ko laajtee drum bi sax comme ñoom seen tradition ñu ñoo ooyee seen sabar sax xamuñ ko ah, eh, bu they are claiming they are cultural passing xam nga seen roots nii nii <laughs> so daf day over definitely definitely wow this is very important as you said um, um, culture is our, definitely our backbone. Sure, because uh, suñ Uh, soon, soon amul culture identify soon boba who we are. I don't know who we are exactly. Fan nañ taxaw you know fan lañ wéeru you know. suñ xamuñ fuñ taxaw moom. you know we are doomed we are doomed as people definitely. Uh, Dance Gambia Association bi right now ñaata members ñoo fa nekk if you guys can tell. ñaata members ñaata loolu bari na ñu fa nekk ah. bari na de bari na so du ma la mun a limal ñëpp ñu fi nekk waaye. bari na trop ndax groupe bi nekk Gambia fii bari nañ trop. waaye dangay gis ni ñu ko fullaal. Mhm. right now. Mhm. mais bi da ngay compter around eh, twelve wala ten ñu dem si kaw. Mhm. mais su ñeneen ñi lan moo xew. dañuy gis ni mooy Mohamed lu ma la doon jógee wax léegi. mooy Gamben mi moo mel noonu. dañuy dugal boppa génnee tànk ndax mooy Mohamed lu ma la wan. <laughs> ndax yaa ngi place ba léegi. ñii ñu ngi puus waaye yaa ngi gis ni still now ñu ngi kaas benn affaire. so gis ñu ko. waa tam mënul xëy rek nekk. Mhm. ndax compté bu compté boo gis nag benn la dee dooree. Ah, waaw dëgg waaw comme waaye fu mu toll nii right now. Mhm. alhamdulilah rabil alamin sant ko yàlla. den mhm. dem nañ ba ñu mis ministre bi si boppam. ñu dem ñu mit directeur bi. ñu togg ak ministre bi. waxaal waxtaan ak moom. ndax da ngay gis ni dans association bi. il faut mu liggéey ak nguur. il faut nguur nangu ñu liggéey. maanaam fil bi boo fa nekkut xam loola mu fay daw. fil bi lu fay daw lu garaaw moo fay nekk yoo xam ni mu ngi daw yoo xam loolu. feebawuñu feebawul suñu dëkk. ndax ñun amuñu fenn fu dul lu dul Gambia. Mhm. te dañuy gis ni tey suñu réew suñu flag bi ñu yóbbu ko tey xaaya xaaya xaaya adduna bi yëpp mooy culture bi dañu war a ñëw ñu joxe mhm. ministre bi mit nañ ko ñëw nañ ci hôtel bi mhm. noonu te nga gis benn xale bu jigéen buy fete comme Mohamed lu muy wàndi mu dem si hôtel bi nga war ko signal contrat waaye yow doo gis lu nekk si boppam yaa ngi gis leneen xaw ma ndax am na sàngalu mooy waa yow gisuloo lu muy liggéey. Mhm. yaa ngi yow leneen ngay seen. leneen ngay seen waaw lu wutee ak moom lu ko indi. foofu lu mu nekk di indi. waaw te ils loolu te loolu moo warut nda jigéen yi bari ñu ngi fecca mhm. waaye ay borom kër lañ. Mhm. ngi sëy am seen i njaboot. te lii seen métier la. ñu ngi ko siy dund. Mohamed wax na ko fi léegi boo demee tey ci suñu Ndebo country man Blaise Senghor laa jàngee ah. boo xam ne mooy école bu gën a mag foofu noonu. Sénégal Sénégal. Mm-hmm. foofu laa jàngee art gis nañ artistes yu mag yu fappe ak ñoo xam ni bokk naa ñoom jàngandoor ba tey ñooñu ñu mm-hmm. xool suñu dëkk fii ñun naka la ñuy dundee. Mm-hmm. ak naka la art bi nekk di dundee. government war na mun a fexe mu jàpp te private secteur yëpp la ñuy nit ñëpp la ñu wax. na ñëpp téye dugal seen loxo. ñu dundal suñu art bi. génnee ko si fële fu mu nekk indi ko ndax tey ñeneen yi boo leen waxee sa ballet dancing de mooy ballet te xale yi ñu ngi fi ñu ngi def yu garaaw si dëkk bi fii mhm. clip boo leen tegalee ñu feccal la ko waaye léegi da nga gis ni benn artiste bu jógee dëkkam ñëw fii mhm. ah, danse yaa ngi fii mhm. amuñ ci benn profit bu ñu fiy def dëkk bi amul dara loo xam ne loolu lañ jëriñu maanaam artiste bi ñëw na ak feccakatam ñëw na ak ay bagage am ñëw na ak everything am play na buub na baxawi dem na waaw léegi ñun fii lan lañ ñun lan lañ bon a fitu dara waaye artiste at least government na mun am yoo xam ne mu ngi ko teg tey boo tey boo demee Ghana nga dem Nigeria. Mhm. dem Sénégal ak yeneen dëkk ak dënn boo demee da ngay gis gars yi naka la ñuy dooree seen culture bi ak naka la ñu fay demee. Mhm. boo demee da ngay fekk foofu te feccakat wala tëggakat wala nan ku lay baag. Mhm. waaye tey boo ñëwee Gambia loolu néew na trop. sonal na nit yi si industrie bi musique industrie bi daal mhm. soo bëgg na ñëpp jàpp si mhm. ñu pousse ko mu dem further waaye ndax amoon na jamono boo xam ne ñun suñu télé bopp sax pour seetaan ko amuñu ko waaye tey bu ñu demee bu ñu mën a toog ñaata TV tey ñoo nekk si biir Gambia fii kon sant yàlla ba mu bari na yokk du dee waaw nga ñëw tey bu ñu doon seetaan théâtre ñun théâtre jàmbur jàmbur lañ doon seetaan te mm-hmm. amoon nañu fi suñu maire yi doon play théâtre mm-hmm. ñooñu dem nañu ba ñeneen ñi tey léegi bàyyi nañu ñeneen ñi uy nañ seen borom yàlla leen suutu seddekal seen kaw ñu fi nekka yàlla ñu yàgga fi lool bu fekkee yëpp mm-hmm. waaye kon still now loolu noonu mënul nekk di daw benn régime bu benn régime boo xam ne mu ngi daw di daw di daw non non war nañ a xoolaat waaye bu tey bu boo ñëwee tey da nga yàkkamti weer koor ñëw wala leneen ñëw xam nga théâtre yi nga daw pour war a mën a ñoo seetaan say own brothers ak sisters yi ñuy play théâtre loolu dafa neex si xol. nga xam ne lii ñun la lii ñoo ko moom. waaye léegi nga gis ni ñun wéeruwuñu lekk ci mm-hmm. dëkk ci ci jàmbur. Mm-hmm. waaye ñu ngi am loolu yëpp fii. Mm-hmm. léegi loolu naka lañ ko war a dooleel. loolu war nañ ko mun a xool government bi war nañ ci mun a xool bu baax. xool bu baax a baax a baax ndax danse bi. lu mu ceeñ ci doomu aadama dafa bari. boo ñëwee ci bale danse bi ñu mu ceeñ ci doomu aadama bari na jël na fale benn sàmba boy ko jox ko yar ko defar ko ba mu baax. tey yàlla def ko mu génn fi tukki dem ñëw def fi lu garaaw mu nekk better person indi ci société bi jël na jigéen bu doon def naka su dul noonu indi ko yar ko defaraat ko ba mu nekk beneen nit tey mu dellu siwaat njëriñ boppam njëriñ famille am njëriñ askan bi kon nga xam ne kon danse bi métier la waaw waaye nit yi duñ ko mën a gis ni comme métier la comme Mohamed lu mu la wax war nañ la mën a gis nga am loo si teg am loo leen si loo si tegaat amoon a jamono fii ba ba suñu booy si rappels bi boo ko wax ne ah booy booy ñu ngi war a play ah booy nii ñu ngi feesal stade booy ñu ngi mën a tukki def leneen ak leneen te nit yi daanañu ko woon gis mm-hmm. waaye tey alhamdulilah mm-hmm. kon yàlla loolu mu yokk mm-hmm. kon ñun dance association bi ñu ngi woo government bi avec secteur yi muy producer promoter DJ yenn yi ak képp koo xam ne yaa ngi yëngu daal ci société bi ñëpp la ñu ne welcome ñu ngi welcome ñëpp pour ñëpp ñu pousse Gambia mu dem foofu. waaw definitely because the culture is our backbone time bi jeex na tak tak. sure time ak ñu jaamu but uh, <laughs> yes balaa ñoo dem you know right now ko bëgg a déglu a group or whatever mu ngi bëgg a call. Uh, def you know um, inquire more about the group or whatever wala bëgg a join mu ngi joxe number boo xamante ne you know borom mun na koo call you know uh, su callee tamit mun naa am nit koo xamante ne you know dina waxa moom laajte ay questions and of su bëggee join tamit. you know uh, yan façon procédure la moo def uh, su fekkee office am na wala su fekkee online registration la you know yooyu yëpp mun koo xam da am online social media sites yoo xamante ne you know somebody can go there and uh, yeah. Uh, yeah. and, and look wow. at some of the things that you guys are doing yeah because loolu leen def previous years bi buñ starté then make sure ñu dajale culture group members managers yun mu la am si biir dëkk bi put leen into one platform mm-hmm. then they host suñ moon le meeting yi right now ñu ngay defaale yeneen contribution yi ak yeneen meeting further mm-hmm. lifin plans yun am yëpp dañ ko dee mu la def into according to mm-hmm. so waaye lay groupe bi ñi ñoo fa nekk right now ñoom ñoo nekk di def registration bi gars seen nombre yi mu leen ko joxe online ki nga xam ne da nga interest pour register yow soo koolee dinañ la gën a enlighten si phone bi wax la lu bëri because time jeex na si radio bi mayu ñu yeah so number bi nii soo ko koolee rek 744 92 76 744 92 76 744 92 76 loolu mooy number bi koo xamante ne you know bugga nga ah, join group bi wala bugga nga laajte more information about the about the Dance Gambia Association mën nga call number boobu noonu you know they will uh, they will definitely assist you whatever thing you need uh, to do with the Dance Gambia Association time bi jeex na tak tak thank you so much Bandmaster thank you so much Mohammed you know uh, it was a pleasure having you people I think this is a very important thing you guys need to keep doing this you know because um, culture bi su dee rek we have nowhere to to go because recently maa ngi gis artistes ñu ngi dellu dellu gestu culture bi bu baax because you know trying in different different kind of musics you know it feels foreign to them but uh, immediately you add your culture to your music it feels daf dee feel na yow lii yaa moom you know it feel daf dee mel ni lu original la and you know if soo ko présenté to another country or a different region dañoo xam ne definitely this is something new we have never heard this anywhere so definitely culture is something that is very important and uh, uh, thank you so